bi booy jamono neexul rek ci gala coow. nice heure woon kat woote bee ma jaaxal xam nga diggante dëkk bi temps yi neexut. dëkk bi neexut su si bu ne nga dégg dab nañ nit jam ko mu gaañ. moo tax man waaw waaw ah, jamono rek bu may xaw ma ne woon ci wër ça va bien. na fi loo koy jox loolu. joxoon na fi euh, bon cinq bi yaa ko maa moom junni bi yaa ko moom. ay yow nii yow guddal fan bi. mais na jox joxal ma ko quinze mille francs. na moom ñetti junni yi. nekk suukaru man naa moom junni bi na fi moom ñetti junni. waaw maa ko jox suukaru kooram jërëjëf. jërëjëf comme que da nga ko daan jox chaque année. waaw waaw moo ne ren aw ma taw. dëgg la waaw ma ne xaaral comme gis naa la. waaw ma jox la ko jox ma ko benn yoon. na sa xel daal boo tëddee nelaw dana ca jot. waaw ndax ndax daal maa ngi na fi na fee te yow it kontaan nañ ci yow. wax dëgg yàlla sama jigéen bu baax la. dëgg la wane nga ko wane nga ko ndax nii nga def nii nag wane na ko. yow lépp lu la jafe woon te nekk lu dagan yàlla na la yomb. amiin yow kay xam nga nu may def jiital la ñu dem baal ma jiital la ñu dem. Ah, nañ dem lu topp sa ginnaaw bëgg laa fakasal ma tas yàlla. Ah, nañ dem nañ dem. ah waay kontaan nañ dem bu baax. xoolal ah, déggoo de benn coow dama koo bëgg xoolal xam nga laa lay yëgal li ma la wax nga defee ko noonu te xoolal damaa nekk si mbedd na bul may xoolal coow laay bañ coow bëgguma benn problème xoolal bul ma indil wax. coow baaxul soo baaxul wax baax. loolu maa ngi lay rappelé. mooy dëgg waaye yow eh, eh, yow mii kii lu mu bokk ak njoletaal bi lan laa séq ak yow bay wax sama wax nga di si dugg. ah kontaan ci rek yow man yow loo bokk ak njoletaal. dama ne est laa wax. bëgg laa may moonin rek mën na ko bëgg laa may xaalis ma ko wàcc ah waa bokk ak njoletaal. ah, ah wax ah bokkuñu dara ah, waaye saay saay nga. ah nga baal ma si nag dégg nga yow à peu près yow à peu près sa ndogu yow ñaata la. waa ay à peu près nag 15000 francs. waaw te day fekk ma banque na su ma banquee ba banque rek laa koy ndogoo. mu yéen 15000 ngay ndogoo te day fekk nga banque. ay yow xale yi man saay saay nañ di ah kon yow daal fii nga dëkkee. waaw côté bii laa dëkkee doo ko defati. <laughs> ñeenti junne ngoog waaye di lii bare di ndogal ah merci beaucoup ndogal loolu merci baal uh-huh. uh-huh. ma si nag jox ma sa nëmba koon bu soo defee daal lu mën a jokkoo maag yow foofa toj voilà defal foofu numéro bi nga baal ma ah yow tooñeen tooñ nga bi mooy sama numéro bi mooy nomba ko soo ndogoo ba pare rek waaw waaw amul woo ma ay 2 heures du matin ñu eh yow eh, whatsapp eh nga <laughs> ne ko teel laa woo man ñu nga am nomba kool bi eh tey nga dee de ay eh, damay katt soxoon nga am ay sa numéro na gis ba yaa mën a fen yow kii ka lay jox numéro bu baaxul man xool jaagal état a seen lépp waaye yow ka man man man waaye yow muusul ca ci watu xoolal ah gaynde daaru la ay waaye xale baatere def na teel. ba heure bi bu ñëwee ndogoon soobee yàlla man moom maa ngi lijjantil kenn dépense ma rey sama simu lii lan la. yow daal man maay jéggi raay bi fii yaa ngi dégg mooy taraawoo Macky Sall yi mbaal baal rek taraawoo Macky yi muy def fii. waaw di jéggi raay bi ñetti mbii fañ yoo xam ne ànd akum ponkal moo xam ne maara day taañ ñu sëqatoo ma dóoma dóor dóor yoo xam ne. waaye loxo ma dóor maa ponkal moom. ëmma seen loxo ëmma seen la du ma seen. moom la Modou Lo la. yaa ñeenti junni lañ dóor ci man. <laughs> léegi na noo def. <laughs> boo xam ne yow yaa moomoon ñetti junni yi ma moom ñaari junni ñu dóor ko. waa Sèye foo jëlee ñeenti junni. ñeenti junni yooyu ci moo la jox ñetti junni jox ma ñaari junni ñu dóor ko. yaa ngi dégg téléphone bi dañ ko bëggoon dóor ma tepp ko fii. xam nga damaa muus. sama téléphone bi nii. moo tax jëluñu téléphone bi. noo ko def. jël bi bokkoon na ma muus xam nga ñuy dóor sa gal ma dóor. ñi ñoo soxor. non tey moom ah. comme xaw na nañ laa rey baal ma lijjanti ndogalee rek. mooy dëgg nag mooy dëgg tëddal rek nag. wax dëgg yàlla moo gën de. comme yóbbu nañ si ñeenti junni. ñeenti junni ñeenti junni. yaa moom ñetti yaa man moom junni. bàyyi naa yàlla yow tëddal nii rek. xam nga bàyyi yàlla man mii maa leen di bàyyi ak yàlla. sëñ nga ne dóor yi nu mu demee. man xoolal dañ maa sëggal di dóor di ma indi. mais nay ancien mais nay ancien boxeur ko dooleeti man de léegi système bii laa koy kaat bu ma génnee noose la ma yor bu ma ñëwee ci kër gi danañ ma doon noo ko coow rek <laughs>